masin ba joona suubu leen dem gaar ba leen taxaw jóg leen taxaw nuy sant sayxi Fàllilu jóg leen taxaw nuy sant sayxi Fàllilu guddeeg bëccëg nu jublu sayxi Fàllilu yaaro ci mboolem lawlu yow Fàllilu yaay Mustafa yaay Muntakal yaay wàlliyu géejum bi ndeefi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 moo bi yoonu Makka ak Madina ay million sappee moo bi yoonu Makka ak Madina Alaaji Baara saana diina yaab siyaare Amadul Makkiyu dellu siyaare Amadul Makkiyu dellu siyaare waa Baqiya xabru Tayiba siyaare kër njool Makka xam nga barba Seex Fallu añ na fa Makka sànni jamra fon doj wa dem Arafat dellu umra dem na Safaa dem ma dalli fa taxaw makaama dem mi na langale fa Seex julli jumaa ja naan ca biir sam-sam kaare yaa bari ndam yaa am jaloore ak ndam a mu ne su laa ŋaññati suukar maa moom bari jël na ndam la bambaani fallu laayi fallum yàlla alaaciyam bakke bu sey ni jaayam bambaa di baayam falli loo di yaaram yaa jara way yaa joxi daaya masin ba joona suur dem gaar ba leen taxaw jóg leen taxaw nuy sant sayxi falli leen taxaw nuy sant sayxi guddeeg bëccëg ñu jublu say xi fàllilu yaaro ci mboolem lawlu yow fàllilo yaay Mustafa yaay Muntakal yaay wàlliyu géeju mbindeef yi ay gi neex na Mbàkke Cheikh Fallo fam nga jumaa ji xàll yoonu Mbàkke daagul dugal tariixul Alaaji Fallo yaay Rasulullaay dem nga fa Makka fam nga ni lilaay alaaji Fallu yaa juboog lilaay am nga ngeen li yàlla hubbulaay fam nga ngeen li Bàmba hamdulaay sariatu aqiqatul iman alaaji Fallu yaay borom kéemaan sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou Boussa Dieng sëñ Moodu bu sa jeng bay ba di ab xalifa di alaaji moom xarnu beeg Tuuba tabax jumaa ji alaaji Fallu lay mooy xalifa moo bi yoonu Makka naw leen néew fa moo bi yoonu Makka ak Madina xarnu bi naat na ay million sappee na moo bi yoonu Makka ak Madina alaaji Baara Mbàkke saana diina yaab siyaare amadul makiyu jël si Ahmadul Mbàkki jël siyaar waa Baqiya xabru Tayiba siyaar kër njool Màkka xam barba ci Fallu añ na fa Màkka ba sànni jamra foon doj wa dem Arafa dellu umra dem na Safaa dem na Tama dalli ba taxaw maqaama dem na